ñëpp ñu nekk benn jàppoo topp le député Souleymane Ndoye jox ko majorité boo xam ne kenn du ko kenn du waxandi si de koy teg mooy xale yi dëkk si dëkk bi Souleymane daf leen di ñu ngi def tout pour ñu am dara waa Souleymane chaque jour mu ngi lan parce que bu le député maire kon def naa ne fi ñu jëm war naa yomb parce que Rufisque bo xolé fep la fa nek yep ñom ñoo ñu and pavé noo dëkk bi ñu ngi defal dëkk bi di xol besoin wa dëkk bi kon nag ñun bu ñu demee ba xamné ñun ki mo fi seuss ñun war nañ and ak ñom parce que risque OS gisuñu fi ben candidat bo xamné investir nañ ko fi si Rufisque Ouest ni mu toll yëpp te Rufisque ngan na na ngan boo xam kenn ko xamné ne nii parti bu ci jël investir nit ne yeen ngeen jàppale. ñun buñ démé ba nekkat ben ñun ñëpp susuwaa ndënku

pour kër laaj ñi lan mooy seen soxla pour waxtaan seek ñoom pour xam nan la ñuy def ñu feebar ñu jëm leen jàppale ñu ngi si woon nag mu ngi si woon ñu gën a renforcer waat jàppale leen bu baax a baax ba nga xam ne ñun fii lañ jëm mais dépassé nañ fi ñu def ay caravane dépassé nañ fi ñu def ay meeting loolu dugg si dëkk bi si ñaaxaat nit ñi wax leen fi ñu jëm wax leen candidat bi fi nekk ndax moo nekk si candidat Rufisque Ouest dañ leen ko jàppale xam ne fii lañ jëm bu subaa ñu jëm fi ñu parce que ñun loolu suñu soxla te lool la ñuy dox niñ dugg si kër yi waxtaan doomu aadama yi xool dafa am si kër yi ñaxtu koon mu ko doon def mais nañ ko gën a renforcer. ndënku ñu si ginnaaw Souleymane Ndoye parce que on a quatre-vingt-dix pour cent ndënku waa ñu si a Souleymane Ndoye parce que loolu mun ñu woon te loolu la ñuy dox chaque jour li ñu bëgg loolu lay dox kon ñun mun ñu nekk si ginnaaw keneen ko xam ne ñu ko gisuñu ko xamuñu fu ñu jëm fan la kon dañuy ñaan daal fa mu jëm fu ne ñun waan ndunk yëpp mu def si ginnaaw Souleymane Ndoye loolu lañ bëgg